nga xam ne rek jëwriñ ju ñu dénk wàllu communication nag sàkku nañu daal di couper internet bi fii ci réew Sénégal dafa doy sëkk loolee nag la ñu xamle ba tax ñu ne Moussa Bokar Thiam nag yooyowul ci poste boobee ñu ko tab yër leen bi la yëglekaay Sud Quotidien feelu ko ne comme ki kay jamono ji nag daa mel ne kàkkatar rek dara doxul ci réew Sénégal ndax diir bi ñu tuxalee élection yi ñu waroon a amal 25 février ba léegi si nag fitna képp la ñuy nemmeeku ci biir réew mi yéenekaay bi na jamono ji nag organisation yi ne ci biir secteur privé bi nag ña yëglu nag tey sàkku ci ñi ñi nga xam ne rek ñoo di way politique yi ñu bañ a tàbbil koom gi ci guut yër leen bi la yëglekaay jamono joojee nag beneenub yëglekaay di àddu jëmale nag ci lu soxal loi amnistie bi nga xam ne rek ñu ngi koy laam-laamee boobaak léegi nag yéenekaay bi di la quotidien ne président Macky Sall kay xottati na taret nag boobee projet ma nga cay dellu ginnaaw ginnaaw ñàkk déggoo goo xam ne rek tàmbali naa juddu ci biir partem démb maître El Hadj Diouf nag ma ngay xam ne ni nag loolee bés bu ko président Macky Sall amalee nag mooy trahir na peuple bi moom kay waxatul sax lu jëm nag xam ne tey jii bu ñu ko fi taxawalee nag mën nañoo libérer Ousmane Sonko ak détenu politique yi yéenekaay bi di bés bi le jour ne Macky Sall kay jamono ji nag ma ngay drible gaay yi ndax ci conseil des ministres bi ñu doon amal niki démb nag àddu wu ñu jëmalee ci situation politique bu doy waar bi nga xam ne rek sénégalais ñu ngi koy dund ci jamono ji maître El Hadj Diouf ci ab janook way taskatu xibaar yi nag ne amnistie Ousmane Sonko nag loolee mooy tra peuple bu Sénégal lu ñu mel nag duma ko seetaan mukk ñu koy jàllale nag lu mu ci mënti doon Sénégal jamono ji nag xamul fu muy taxaw nag jëm ci wutum jàmm wala sàmmonteek lu jëm ci loi constitution bi ndax boobaak léegi nag Sénégal mu ngi ci ay yëngu-yëngu moo xam waa société civile bi universitaire yi ba ci étudiants yi nag kenn ku nekk yaa ngay woote ci wàllu wa nga féetee nag lu jëm ci wàcc ci mbedd mi nag weñ loxol gouvernement bu Sénégal ngir mu daal di sàmmonteek suñuy constitution jàll ci yëglekaay bi di enquête nag fekk fa xupp yi nga xam ne rek ma ngay tukkee ci Cheikh Oumar Anne jëmale ko ci syndicat d'enseignants yi nga xam ne rek dañuy woote ci ay ma ngay xam ne nag ne ay daan dinañ ko teg ci seen kaw ci képp xam ne rek yaa ngay def ay jéego yu mën a gàllankoor wàllu jàng meeg jàngale mi lu soxal ba tey loi amnistie boobee nag APR ña ngay valider ci biir enquête yëglekaay secrétaire exécutif national bu APR démb amal nañu ab ndaje di xam xamle seenub taxawaay nag ci saafara mën a juddu ci boobee loi ngir jàmm mën a am ci réew Sénégal élimaanu jëwriñ jii di Amadou Ba nag dëggal nañu ne mooy wéy di doon seenub candidat ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ci les éco yëglekaay Macky Sall di xam ne ne nag congrès bi jamono ji nag leer na nañ dafay des rek ci maître ba ngir mu daal di amal ab liggéeyam ci jamono joo xam ne rek ña ngay tàmbalee gis ay xiiro ki ngaayoo ndax boobee loi amnistie l'observateur ma ngay dellu nag ci kàddu yi nga xam ne rek tukkee na ci président Macky Sall ñàkk déggoo gi nga xam ne rek jur na ko ci biir parti bii di Benno Bokk Yaakaar lu jëm nag ci nu ñu mën a def rek ngir jàmm dellu siwaat ci biir réew Sénégal kuréel gi nga xam ne rek moo ëmb njabootug ni politique yi nag ñu ngay fësal seenub dëgg ci loi amnistie boobee ñu bëgg taxawal ci réew Sénégal leneen loo xam ne rek fekk nañu ko ci biir yëglekaay bi di l'observateur cër bokk na ci Karim Wade mi nga xam ne rek dañoo jàpp ne ab dee dekki la ndax moom nag jamono ji dafa tëdd ca Qatar yor ab commandam rek mel na kuy doxal ci politique beeg ni muy doxee ci réewu Sénégal Vox Populi nag ma ngay dellu siwaat ci ndaje mi nga xam ne rek waa Benno Bokk Yaakaar amal nañ ko niki démb di dëggal ne ba nëgëni sii nag Amadou Ba mooy des di doon seenub candidat beneenub yëglekaay mu di Walf Quotidien dellu siwaat nag ci gas gi ñu gas ba mu xoot nag daal di suul commission d'enquête parlementaire bi yéenekaay bi nag di leeral ne exécutif bi di joué ci kaw bu Sénégal Sall wax ci lu soxal jàng meeg jàngale bi nag yéenekaay bi di Le Soleil di xam ne ne président Macky nag ma ngay sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu daal amal ay waxtaan ak ñii di communauté universitaire bi nag su ko defee jàmm daal di am ba ñu mën a wëyal jàng meeg jàngale bi nag tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale réew mi sport ga dellu suwaat ci juróom-ñetteelu final bu Ligue des champions bi ñu doon amal nag yëglekaay bi di xam ne ne nag waa AFC dañoo zappé kii di Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly yëglekaay beneen des stade quotidien àddu jëmale ci CAN 2023 bi